xew ci di ñëw ci jotaay jotaayam yii nga xamante ni moo ko tànnal boppam tànn ay nitam tamit ngir ñu ñëw di ci di ko di ko di ko di ko taxaw waaw tabaarakallaahu yal nañu yàlla muur loolu lépp tabaarakallaahu sëñ Moustapha dafa baax rek waaye moom rek mënoon na ko mënoon na na def jotaay bi comme ni mu koy defee toujours waaye ci yaatalam rek ak rafetalam euh, moo tax muy ubbi nii yàlla nañ ko bokk ñu ñëpp tabaarakallaahu ah yëf yi ñun ko bokk ko bokk ñoo ko bokk te cheikh radiallahu anhu loolu rek la bëggoon mooy taalibe yëpp bëggante soppante waaw di ku ci nekk rek waxu waxu waxul sax ngay gis sa moroom ci sa bopp waaye déedéet ngay gis cheikh ndax sa moroom mën na am sikk mën na am manquement waaye bu dee jëmm sa mbokk mbokk taalibe yaa ngi ci gis jëmmu cheikh Tidiane yi doo gis lu dul lu rafet doo gis lu dul lu yiw même bu dee safaan génn na ci da ngay xamni ci ginnaw safan ba sax amna yiw bu rafet bu ci bu ci bu ci laqat waaw bu rafet boobu nga xamanteni ku koy xolé rek sa lepp bax sa aduna bax centimètre euh centimètre bu nek ci sen yaram rek tabarakallah mo ngi am lu muy dund te lolu bu ñëk rek moko daan dund wala xol rek moko daan dund lolu nag yàlla ñu fi yalla defal ko defé rek baax yal nañu yàlla barkeelal suñu jotaay bi tabarakallahu comme ni ñu ko waxee woon keroog ca bis ba rek macha allah euh, ñu waxtaan tuuti rek ci Cheikhna Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu ndax tamit euh, mag ñi lu nekk def nañ ko ci way nañ ci ay way def ci ay bind def ci ay jotaay tabarakallahu léeg-léeg ci xadra yi du toujours waaye léeg-léeg ñuy profito sànni ñaari kàddu xiir njaboot gi ci ñuy soo ñëwee ñun la demal wuti Mugiyatul Mustafid wala demal seeti Munyatul Murid wala demal seeti Faakihatu Tullaab demal nga gëstu Rimaax demal nga nga nga gëstu Miftaaxu Saadati Labadiya demal nga gëstu Kashful Xijaab demal nga nga nga gëstu Ifaadatul Ahmadiya demal nga gëstu mu ngoog Jawaahirul Maani yooyu yëpp danañu ci xiir ngir ñu gëstu tariqa bi parce que mbir doo ko bëggee jëriñoo da nga koy xam. waaw dañuy wax ne am ko tax xamoo ko ñàkk ko tax xam koo gën moom ko gën ndax soo ko amee mën koo téye fonk ko bu baax soo gisee tamit différence bi am ci ñun ak mag ñi loolu rek la ñoom li ñu yoroon dañ koo xam maîtriser ko euh, xam zahir beeg baatin beeg baatinul baatin bi téye ko loolu moo tax kenn mënu leen woon déjjati kenn mënu leen woon déjjati au contraire soo ñëwee sax di def safaan ñoom day da di yokk waa am na koo xamante ni doo ñëwee di dingat cheikh kàddu boo yokku kàddu boo wax na nga xam ni bu dee da nga ne euh, yow mii muy juróomi lettre wala juróom benn lettre lettre bu nekk yokk nag ci moom la ci Cheikh te yow katt kàddu googu ngay wax da nga koy wax pour diingat ko wala pour wàññi pour kooku génn ci loolu loolu nag pas-pas boobu ci tool rek si lépp baax su ko defee euh, macha allah euh, weer wi nga xamante ni moom la nekk weer wu doy waar la mooy muharram bi nga xamante ni yonent yëpp alayhimu salaam seen lu bëri ci la am loolu yaakaar naa dégg ngeen ko ci waxtaan yi loolu leen ko xoolee ci internet tamit di ngeen ko gis bu baax baax baax waaye ñun it am na xew-xew yu bëri yu ci am lu mel ni ci dund Cheikh Tidiane gën a kawee tamit moo ngi ko amee ci muharram bi ak ci weer bii di ñëw tuuti safar incha allah ñaari weer yi daanaka lim doon wut yëpp ci la ko yàlla joxe tabarakallah sunu sëriñ bi tamit euh, bu mag bi di Seydi Ibrahima Rayaahi radiallahu anhu fukki fan ak ñett ci weeru euh, muharram bi moom ci la daal dem demee ci ci la ci la faatoo waaw lu bari na xew-xew daal bu ñu ko toppoon loolu rek yaakaar naa suñu xooloon tarixa tijaan ak gars yi tarixa tijaan ak muharram loolu rek waxtaanu boppam la yàlla seedeel loolu waaw nga xamante ni weer wu weer wu bari leer la weer wu weer wu weer wu bari ay ngëneel la ni ci yàlla defalee yonent yi noonu la defalee lawliyaaw yi ndax comme ni ko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waxee nee na wëli yu boo gis mu nekk nii rek mu ne ci suufam rek tànk wëli yu boo gis rek am na benn tànk yonent boo gis rek am na wëliyu bu fa bu fa goor toog fa waaw wëliyu boo gis moo ngi toog ci tànk ak yonent waaw ba mu des nag suñu sëriñ Cheikh na Ahmada Tijaani moom moo ngi toog ci tànk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy al wali al muhammadi waaw yeneen wali yi lu ñu baax baax lu ñu am am cër lu ñu am am maqaama kenn kenn ci yonent yi la ñu doon waaye Cheikh Tijaani radiallahu anhu moom moo toog ci moo goog ndono rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu moo tax mu donnaale yeneen yonent yëpp عليه السلام لول موتاخ مقامام تبي كين منوكو نات كين منوكو خام لول موي صاح مقامام ييغا خامتيني ان شاء الله تي وير وي تي لا نتي وقتان توجور موي خاتميه اك كاتميه غا خامتيني سي سي تري سامبل وادي دا فوخني دا فوخني فبال ختمي والمكتوم سمي عندهم لختم ولايه لوكيت ماني ركتي يخنا واو لول كاسلا ني دال دنجكاي ووي قطبل maktuum ñii di ko woowee xutbul maktuum xaatimul awliyaa yi ak xutbul axtaab xutbul maktuum waaw nga xamante ni lii maqaamam la boo xamante ni ba mu ko ba mu ba mu ñëwee ci moom lam ca am keneen dootu ko ci am mooy xatmi yéen moom bi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee xaatimul ambiyaa yi moom noonu la nekkee xaatimul awliyaa yi nga xamante ni beneen yonent doon dootul ñëw bu dee Cheikh Tidiane nag yeneen wëli yi dinañ ñëw waaye benn wëli yi dootul am maqaama Cheikh Tidiane ndax maqaamam dafa mel nii soo demee fële ci Nations Unies euh, am na ñoo xamante ni ay kii lan rek ay invité lan daanaka ci état yi waaye am na ci état yoo xamante ni ñoom ay membre lan lañu membre permanent am na ci membre permanent yi am na ci ñeneen lu ñu am beneen doole bu gën a ëpp doole ba mooy lan droit de veto moo ngoog nga xamante ni tey jii du du du nation Nations Unies assemblée générale ak xaw ma lan ñoom yi ci des yëpp suñu décidé ba noppi moom du ne maa lànk rek yëfee yàqu na waaw waaw membre permanent boobu nag ak doole jooju loolu muy junj ci Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala an moom maqaama permanent la am boo xamante ni jiitu na sax maqaama yi di dig di dig maqaama yi di feeñ loolu yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko xutbul wujudi ladi abda wilayatahu kañ rabbi wa aadamu bayna al maai wa tini kon ko kon rawante bi fii xutbul wujudi ladi abda wilayatahu rabbi wa aadamu بين الماء والطين قطب الوجود الذي أبلى يداه ربي وآدم بين الماء والطين ولفعل شيخ التجار الذي شاع الطريق الطريقة بين البرية برهان البراهين قطب الوجود الذي عبدا يتاه ربي وآدم بين الماء والدين ألفان حازت بمجموع أسرار العجائب إيه والغرائب الغر في غايات تعسيني قطب الوجود الذي عبدا ولايته ربي وآدم بين الماء والدين جرجف كون آه، روانتي بدو في مام لا سيد العرب بن سايح رضي الله عنه دان وخ يا سادة لهم السيادة في الأزل في الأزل دو في آه، يضاع عبد في حماكم قد نزل يا سادة لهم زيادة في الأزل الله الله الله الله siyaadatu fil asal àdduna film la waaye gis la mu sayax na Las Vegas bi de ñu koy tuddee Hollywood ga wala Warzazat ga wala euh, bërëb yañ koy joué film ya waaw mu ne asal la mu ne foofu nag Cheikh Tidiane fa la rawee ñëpp ne kon nag du ñuy film bi ci àdduna mënoo fexe ba jeune homme bi di ab héros mënoo fexe tamit boo ku bon kii ñàkk nekk ku ci dara loolu démb la mu ne mu ne mu ne jiitu bi foofu la kon euh, euh, maqaamu permanent bu Cheikh Tidiane boobu radiallahu anhu jiitu na sax juddu doomu aadama yi tabarakallahu loolu nag wàllu baatin la wàllu leer la euh, waaye nag incha allah ñun mën nañ koo dund mën nañ ko yëg bu baax ndax salaat fatiha gi ñuy jox pour loolu kese la incha allah ci la ji daanu léegi pour wane ni cheikh loolu kese la day fexe rek ba nga sa dund démb daal di nekk sa dund tey rek na fa nga jaarum lim nga fàttaliku ko te doo koy fàttaliku rek lépp di baax loolu kase la liggéey bi yëpp tarbiya bi si kar beeg topp sëriñ yeeg loolu kase la pour fàttali la démb rek la nga fekke woon démb te nga fàtte ko ñu fàttali loo am na ñoo xamante nag day gaaw ñii day yéex waaw léegi-léegi nag dina yomb lool doo koy fàttaliku rek lépp di kii moo tax dañ euh, euh, euh, àgg ci yàlla mooy mooy mooy doonaat xale rek mooy doonaat xale rek xam nga xale moom du ñëwoon fii du bëggee tuur ndox fii lay tuur ndox su bëggoon tufli tufli su bëggee saaga saaga la du soxlaa si laafa kii bu yowboo day yuuxu ne jox leen ma laafa bi waaw ku àgg ci yàlla tamit noonu ngay mel dootoo xàmme dara da doonaat xale rek te xale mooy kii xam yàlla dëgg xale mooy ki xam yàlla waaye yàlla dafa daf ko àggale ba noppi ci xelam daal di tëj làmmiñam moo tax léeg-léeg nga gis ko mu jooy léeg nga gis ko mu ree léeg nga gis ko mu tëb ci ci ci ci te boobu ay weer la am fekk mu ngi gis xaqaayiq yëpp xam-xam-xam lépp leer ko naññ muy bëgg wax ne yéen daal yéen xamoo leen di xew fajar jot ngeen di nelaw te gisoo leen leer yàlla yi ni muy wàccee yow jugal waxtu wi du waxtu kii sàggan yaa ngi jëw de doo gisoon bàq sa gémmiñ gi euh, moom nga xale bi yooyu lay gis te mënu koo génne su ko defee nag léegi su demee ba am ñetti weer am juróom ñaari weer am at commencé xel mi commencé am doole rek nga gis xam-xam xam-xam yam amoon nag daal di commencé réer nag léegi nag xam-xam boobu il faut que nag nga demaat nga dajeeg nitu yalla waaw kay mu di lay opéré wat nak ndeysaan dal di lay branché wat ci xam-xam yoy te xam-xam yoy do ci delloo rek daal di set wicc dal di mel nga waroon mel yalla nañu yalla defal waaw mo ngo loolu moo nit day jogé ci néant jaar ci minorité han ah, nga xamante tabarakallah étape bu doy war la ci doomu adama légui nak après nga dal di dem nak dugg ci majorité waaw majorité nga xamante ci digënté bi jaar nga ci li ñuy wax adolescence muy muy étape bu bu bu triste bu doy waar boo xamante ni jeunesse jeune jeune bu ci rëcc yàlla mën na la dimbali nga mucc waaye jeunes yu bëri ci la ñu tarxiisee ndax ci ngay njëkk defee ay faw ci ngay njëkk a ci ngay njëkk baalantoo ci ngay njëkk a gelantoo ci ngay doyadi yooyu yëpp ci nga koy defee léegi nag su amul accompagnement ci ay wuyjur yu baax wala say nijaay wala say mbokk nga am accompagnement bu baax rek da ngay su ko defee nag soo su la mayul loxo rek musiba am moo tax moment yu doy parce que da ngay sentir ay ay hormone la moy dugg ci bir yaram bi di perturber sa cieur yi commencé genn sa bat bi commencé deuguer nga am xawma pom pomme lañ koy xawma nga yek ay affaire ci kër gi ah nga commencé nan wa pourquoi pourquoi pas ceci pourquoi pas cela di commencé di xel mi di dik nga yek yo daanul yek ngay ngay am yoy bañ te ko daan bëgg ngay bëgg yo xamanteni ne da nga ko daan bañ ay ay effet commencé feeñ ci yow soo amul accompagnement rek musiba fay am mo mm-hmm. ngok su ko defé nak nga daal di jall fofu gis nga mag ñi li ci fofu dañuy gëna euh, labali ci njang mi gën laa xiir ci njàng bu dee léeg-léeg euh, gis na ni teel ngaa dëgër tuuti ñu teel laa jox wird su ko defee yow acharnement bi nga waroon am ci sa yaram ak fo ak caaxaan nga rakkaaju ko ci sikkar rek di wird rek di waaw foo tool yaa ngi taal cuuraay rek di góorgóorlu foo téere boo yaakaar ni da war a jàng téere yëpp fekk yow sa crise d' ngay def mais positivement nga koy def mag ñi ñoo lay accompagner noonu léeg-léeg ñu ñu xiir la ci ay daayira xiir la ci yeneen business wala ñu jël la sax yóbbu la pour ngay def karaté pour sa sa crise d' bi nga koy defee ak ay ku euh, wala nga koy def ci sport di ko ñàkk di ko yuuxu moo am na daal accompagnement bu fooram du amul nag euh, musiba mën naa am moo léegi su ko defee nga jógee foofu daal di majeur léegi lan mooy majeur majeur ci euh, ci sunu réew yi mooy nga am 16 ans ci yenn réew yi yeneen réew yi la mais soo demee ci ñenn ñi am na ñoo xamante ni seen majorité du àggu foofu par exemple soo demee ci buur yi roi yi ñoom 14 ans la ñuy majeur parce que dañuy calculer par exemple du buur bi faatoo euh, kenn bu xale bi mënta mënta toog parce que xale la waaye fi mu ne 14 ans la am 14 ans bu dee buur parce que préparation ak euh, formation ban lay defal dafay dëgër dëgër boo xamante ni doomu buur à 14 ans war naa mën a jiite am réew waaw moo tax ñoom seen majorité mooy gën a gaaw ñun suñu majorité su ko defee diggante bi nga xamante ni conseil de régence bi ñoom ñooy gérer di toppatoo en attendant duy am 14 ans rek yow nga war a xaar yeneen ñeenti at pour mag moom du amee 14 ans léegi moom majeur na. gis nga majorité yi bokkul léegi lan mooy major loolu mooy nga majorité ci nguur ñun majorité ci suñu réew yi ak ay Sénégal ak yeneen réew 16 ans la yoola 18 ans ça dépend bu dee bu dee ci l'islam lan mooy majorité majorité ci lislaam mooy nga am kawar foqutaan wala nga gént wala nga am gis règle wala nga am fukki fan fukki at ak juróom wala nga ma nga yooyu moom mooy mooy mooy wakulu taklifin bi chartil aqli xaw ma ba mu jeex noonu ma nga ko yooyu mooy majorité ci l'islam léegi lan mooy majorité ci biir tariqa tijaan kan moo majorité ci biir tariqa tijaan ki majorité ci tariqa tijaan mooy kan du ki am 18 ans du ki am kawar du ki euh, gis règle du ki gént euh, sëy ak mu xëy suba gis lu génn ci moom déedéet ki am majorité ci tariqa tijaan mooy ki jël wérdu tijaan jeex na soo amee 60 ans te jëlugoo wérdu yow mineur nga ci tariqa bi Hmm. tarixa bi dañ koy jël tarixa bi dañ koy jël sympathisant ci waaw tabarkàlla baax na lool waaye nag pour nga majeur ci tarixa bi nga xamante ni da am ay droit ak ay devoir am ay obligation ak xaw ma nan nan il faut nga ñaan wérdu bi nga jox la wérdu bi nga jaayante ci tarixa bi su ko defee yow léegi majeur nga ci biir tarixa bi léegi nag comme yow majeur nga ci tarixa bi ni nga xamante ni noonu ki ñu ëmboon toppatoo ko ci maternité bi di ko suivre ba mu indi doomam mu nekk liir ñu koy toppatoo ba mu kii ñu toppatoo crise d'adolescence am transition boobu ñu toppatoo ko ba du ci dugg ci benn doye di benn ñàkk fayda ba mu jàll léegi yow majeur ngi tarixa bi tamit léegi Cheikh Tidiane radiallahu anhu moom it moo lay accompagné nag ci li des sa dund ndeysaan waaw quel accompagnateur ah moo lay accompagner nag ci sa dund yëpp nag di la dimbali nag di la di la orienté te fekk sax yow mi nga xamante ni da nga mel ni man yaa gis ni bi nga jëlee wér du nga commencé di wax ak Cheikh waaye fekk ni yoo soo xamoon li xew di nga xam ni laataa nga juddu sax fekk na Cheikh Tidiane radiyallahu anhu commencé na di la toppatoo di la yar di la orienté di jël ay leer di ko sotti ci sa ruux di ko sotti ci sa xol di ko di ko def ci say wéyjur di la topp di la topp di la topp ba keroog nga judd mu lay topp bi la topp bi la topp ba keroog bis ba jot mu ne la ñëwal te Cheikh radiyallahu anhu ku mu woo mënatoo mënatoo ñàkk wuyu cheikh Koumbourou mënatoo ñàkk wuyu ndax lahu tasarrufun fi lakwaani xaatibatan kazaka tarbiyatu larwaaxi wa zaati cheikh Tidiane radiallahu anhu lépp li nga xamante ni ci doomu aadama la muy jëmm wala wala ruuxu wala ay cër yu nekk ci moom cheikh Tidiane daf cee am daf cee am emprise daf cee am doole te loolu yàlla ko jox jaar na ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee doo jugee ci majorité boobu majorité mooy indi responsabilité Donc ngay ñu il est il est pénal il est euh, responsable pénalement Hein? waaw wala civilement il est responsable Les termes gis nga terme responsabilité boobu dafa am solo lol lol lol lol. Lol moo tax nag doo amul kilifa bu mat kilifa ko xamanteni daf lay topato pour say euh, erreur wala say njuumte wala say crime wala say délit wala say contravention nga nga nga am kilifa goo xamante ni moo la ci dimbali ba foo war a dem mun la fii fëlëb taxawal fii lii dëri la lii musiba la lii bu ko jaare nii lii bu ko jaare nii soo ko amul rek mën naa am sa majorité boobu dootul am benn responsabilité su ko defee yow benn njëriñ doo ko am ci àdduna da ngay mujj rek daal dem mujj ci loxo buur wala àdduna comme ni ñu koy waxee deewu kañ ak yi mujj dee wala dóor bal wala nga xeex ban daañ la wala sa àdduna day daal daal day yàqu waaw sa àdduna day yàqu toujours ma koy wax moo tax tamit nañuy wattu bu bañ di xuloo ak ñëpp wax ak ñëpp parce que ñun dañoo am lu ñu bëgg ci àdduna dañoo am lu ñu yéene te am na ñoo xamante ni fi ne nii dund dee moo leen gënal dund parce que seen seen dund yàqu na am na ñoo xamante ni dañuy préféré sax jam la wala ñu gaañ la dem tëddi noppalu ci parce que kaso ñoom euh, noppalu ci ñoom su ko defee responsabilité boobu moom mooy indi efficacité mooy tax yow lépp looy def ci àdduna nga mën a am résultat yu baax muy sa njàng ak muy sa àdduna muy sa mariage ak muy sa jëflante ak doomu aadama yi responsabilité bi nga xamante ni moom nga am mu jóge ci sa majorité moom moo lay jox efficacité ba loo def rek mu jaar yoon soo jàngee bu baax soo liggéeyee bu baax soo defee stage bu baax soo jëflanteeg nit ñi ñu ne gongo soo jëflanteeg ñu ndaw ñi ñu ne rafet na soo jëflanteeg mag ñi ñu ne rafet na loolu li koy may moo encadrement bu baax te loolu nee nañu mooy indi félicité mooy euh, euh, li ñëpp di wër radiallahu anhu wa radu anhu zalika li man rabbu te félicité mooy indi proximité yàlla subhanahu wa taala nga xamante ni da mujj daal di bokk ci ñi dëkk dëkk dëkkandoog yàlla dëkkandoog seen naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëkkandoog Seydina Cheikh Ahmed Tidiane si laata bi nu saa yàgg naa leen ko wax man leen bàyyam daf ko gis muy sonn lool nekk di tëju rek di def salaatu ala nabi yu dul jeex lu nekk mu nekk ci rek mu ne ko waaw sama doom yow sonn nga de yow lu xew la lu xew mu ne ko ah man daal damaa bëgg rek gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàgg naa ko jàng yi waaye daal du ma sañoon dinaa ko gis ndax loolu fiixal sama xol man daal benn feebar rek laa mooy dama bëgg gis yonent bi sallallahu la wasallam baay ne ko euh, sama doom gis yonent bi baax na neex na am na solo rafet na yiw waaye nag dëkk moom moo gën ah mu ne ko waaw ci àdduna bi am na dëkk ak yonent bi mu ne ko waaw waaw mu ne ko soo génnee fii jaaral nii ci ruq bi rek soo demee fee di nga dégg ay ay ay ñoo xamante ni benn morceau la ñuy jël lal ko suñ ko la ñu wër ko suñ ko wëri après ñu jéggul yàlla ba nga yaakaar ni ci istighfar rek lañ dëkk ñu daal di julli ci yonent bi ba nga yaakaar ni ci julli ci yonent bi rek lañ dëkk ñu commencé naan laa ilaha illallah mu ne soo dem ba yaakaar dëkk ñu daal di delluwaat ci yonent bi jàng jëwarat kamal suñu paree daal di jàng inna allahu malaykatuhu mu ne ko ñooñu soo demee ñooñu dañoo dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal wala yàlla bu mag la ko koo xamante ni la li defal tarixa bi euh, kenn kenn kenn kenn kenn mënu ko cee fay waaw ci layal ko ci euh, tontu gars yi doon di nga tarixa bi ñoom moom la daan wax Buxaari Cheikh Tidiane ndax xam-xam bu bëri bi ak wilaya gu mat gi ak cër yu mat yi daanaka soo demee ci Maroc gay moom lañ gën a xam sax ñoom waaw moom lañ gën a moom lañ gën a bëgg moom lañ moom moom la ñuy tudd sax ñoom Maroc soo demee yëpp fépp moom la ñuy tudd moom la ñuy tudd moom la ñuy wax daanaka ñoom doo waxee Cheikh sax ñun la Cheikh hors catégorie la bokkul ci bokkul ci discours bi bokkul ci waxtaan bi si laara bi rek la ñuy wax ma maqaamam ak cëram ci yàlla ak euh, li mu liggéey ak li mu yeesal ci tarixa bi moo ko Seydi Ahmed Sukayri radiallahu anhu moom it lu bëri ci tarixa bi nii imaamul Buxaari radiallahu anhu defe defaloon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dindi hadis yi ñu ko sosal yëpp ba mu set waaw da dajale dajale hadis as saxiixa yëpp mu jël ko dajale ko ci recueil boobu moom la ñuy wax saxiixul Buxaari Euh, imam Bukhari loolu mu defaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu yonent bi sallallahu wa sallam ci géntam googu mu géntoon yonent bi ay weñ dal ci kaw mu dem ci sëriñam sëriñ bi ne ko yonent bi déedéet weñ mus koo laal waaw waaye ko demal ba nga demal après nga ñëwaat ba mu ne ko yonent bi dafa wax ni euh, sunnaam si dafa am ñu ci rax yu ci bokkul mooy weñ yooyu yow nag la jox ndigal pour nga dindi ko moom set te mu nga dëkk fële ci Ouzbékistan Bukhara ñu bëri xamuñu loolu dañu yaakaar ni imaam Bukhari naar la du naar fee Ouzbek la moo ngi fii dë dëkk ma ngi fii ay njab mbokk ma ngi yëpp ñoom ñoo ngi fii ci Ouzbékistan ñoo ngi fii ci euh, suñu mbokk yi ci wetu Tchétchénie ci wetu Russie ci ak foofu loolu yëpp suñu suñu cër la yàlla ñu yàlla fayal ñu leen ñëpp waaw cër boobu imaamul Buxaari am moom la Seydi Seydi Ahmed Sukayri ji am radiyallahu anhu lu bëri ci tarixa bi moo ko moo ko moo ko leeralaat waaw dindi ko ba mu set daane lii ñu waxal cheikh du dëgg dañ ko sosal cheikh diw moo ko sos ci téere sàngam indi daal ay tegtal yu góor waaw ñooñu kenn mënu leen a fay yàlla na yàlla fay ñu leen moo ko Seydi Mouhamadul Haafis Tijaani al al al misri waaw moom yàggul sax moom am na ci ñu bëri tarixa bi moo ko dugal ci Europe waaw daanaka ci diggante Italie ba Allemagne daanaka ñi fi njëkk a nekk tijaan moo leen jox wér ñu ci bëri mooy seen sëriñ waaw ah, sëy sëy waaw ah, sëy Mouhamadou Hafiz te daanaka ñu ci bëri kenn gisu ko ci day bindanteeg ñoom rek ñu tuub bu bindanteeg ñoom ñu daal di jël wér ñu ci bëri mu defal leen ijaaza ñuy tas tariqa bi soo demee ci sëñ kii mi am na mbokk mu ñuy wax am sama kawloo ci foofu foofu la jokk moo ngi fii ci Munich am nay Sénégal yu bëri sax moom moom moo leen jox wér ak italien baax la waa doy waar la lu nekk la xam daje nañ 2006 Maroc waa ju yéeme la bi may bi may mujj dajeeg moom moo ngi firi mook benn taalibe yàlla seede na lool waaye du lay wax ci tarixa bi dina wax ci cheikh da ngay mujj jaaxle de ndeysaan barakallah waaw loolu yëpp nga xam ni Seyd Mouhamadul Haafis jàmbaar la moom la moom moom mu xadis bu mag la woon tabarakallahu moo ko doon lu ëpp téeméeri junni xadis tabarakallahu waaw waaw lu ko ëpp ëpp na ko dama ko dama ko tënkee noonu rek waaw waa Azhar ci boppam duñ jaaxle waan ci xadis moom la ñuy seeti ba tey jii doomam Ahmad Mouhamadul Haafis ba tey jii Azhar TV moo dafay def waxtaan loolu da ngeen ko bàyyi xel rek moom ingénieur bu mag la moom wali bu mag la ñëw na sax Sénégal ñëpp xam nañ lu bëri daf ko leeral ci tarixa bi waaw gars yi sos yu bëri yu ñu sosaloon ci cheikh ko cheikh moo ko dindi ba mu set indi ay adil la yu wér teg ko waaw ba azhar yëpp mujj respecté cheikh Tidiane radiallahu anhu ba fan yi ci ginnaaw dégg ngeen euh, docteur Ali Juma ah moo ngi dund faatoogul mu nekkoon cheikhul azhar ah nekk muf nekkoon mufti bu bu bu wax wax na ko mu ne xat tariqa tijaan tariqatun mabniyatun ala sunna waaw mu ne tariqa tijaan daal càmbar naa ko seet naa ko du début jusqu'à la fin A ba Z waaye lépp alquran ak sunna la waaw déclaration la boo xamante ne ñu bëri neexu la woon waaye nag loolu mooy junj loolu mooy mbiru tariqa mooy mbiru na Ahmed Tidiane ndax radiallahu anhu laataa moo juddu eh, ibnu arabi yi ñëpp dégg ngeen ko waaw def na yitte yu nekk ngir jël maqaama boobu mooy maqaama xaatima lawliyaa waaye nee na dem na ba yàlla defal ko ci kashfu ubbil ko ba mu xam ne waa ji Fass lay dëkk Fass lañ koy denc mu ne sax daje naa ko xam ndeysaan mu wax ne nag moom caractéristique am principal mooy ku ñuy diingat la déggal ku ñuy diingat la ku ñuy diingat la waaw moom laa wax nag ma ne ah tabaarakallaahu du safara amee waaw ay gurtu ndox nekk fi ak ay gurtu essence ah yow nga nga ne nga ne da ngay fay safara sax daal di juum ndeysaan jël gurtu essence ba soppi waaw nu muy def day gën a koy xanaa ñoom waaw kay dañoo xamul ne diingat yi ñuy diingat tarixa bi mooy tax tarixa bi gën a tàkk heure bu ñu diingatee cheikh léegi rek ñaari yoon ñetti yoon ci jotaay rek ñu wax ko fii wax ko fee def ko ci youtube rek xamal ni am na junni ñu jël wér ñu bés tàq ñoo xamante ni mus ñoo xam cheikh tarixa bi ñu xam ni mus ñoo xam cheikh lu lu diingat bi ak noonoo gi gën a dolleeku rek tarixa bi gën a tàkk waaw moo tax tabarakallahu tarixa muñ la tarixa muñ la léeg-léeg nga dugg ci youtube dajeeg vidéo boo xamante ni tabarakallahu sa xol du neex ñuy wax ñu xamante ni teg ko ñu tus ki gën a tuuti tarixa bi ci adduna bu dee borom xam-xamu adduna nga da am diplôme wala da nga jàng bu dee fiq nga jàng wala ay hadis wala xam-xam boo mënti am ki gën a tuuti tarixa bi suñu la booleeg moom mu toroxal la mu réduire la à néant massacré la ci ay seconde ci loo mënti jàng nag parce que looy wër rek yàlla def na ko tarixa bi looy wër looy mënti wër ci adduna waaw nga gis leen ay xale yu ndaw toog di di di di di wax ci Cheikh waaw di ko di ko di ko di ko di dal ci kawam ndeysaan waaw man leen ah da ngeen a xamul rek waaw allahumma ixfir li xawmi fa innahum laa yaalamuun mooy dox ba tey suñu xamoon Cheikh radiallahu anhu maqaamam ak darajaam ak cërëm ak ni mu nekk yërmande yàlla di sirru ayni rahmati rabbaniya billahi duñ ko dingat duñ ko sànni benn trac duñ ko gaaral duñ ko wax dara ku ñuy sopp lay doon ci ñoom ku ñuy bëgg lay doon ci ñoom moo tax jamono yi ci ginnaaw am nañ lu leen naqari lool lool lool lool ñoom ndax ki nga xamante ni moo raw ci ñoom fi ne ni dañ ñoom ci jamono ci raw mooy yuusuful xaradaawi moom la ñu wax ni moo ci raw te yuusuful xaradaawi ki muy waatee ci kaw suuf benn jeune la boo xamante ni cinquante ans matagul moo ngi <laughs> moo tax boo ma gisee turoom bi rek laa xam ni Cheikh Tidiane moom moo mën ci kaw suuf moo mën ci zahir moo mën ci baatin moo mën ci zahir moo mën ci baatin su mbir mi nee fànn leer nañ moom la su mbir mi lëntee tamit nii nga xam ne yow gisoo ko moom la waa ji moo ngi tudd Mouhamed Wuldu Xasanul Dëddu ak Chinqiti ba ma gisee Chinqiti laa ne ko jàngee jeex na Chinqiti mooy porte d' entrée de la tariqa tijane en Afrique Seydi Mahamadul Xaafis Cheikh Tidiane ko muy wérdu moo may Mawlud Fall Mawlud Fall may Abdoul Karim Diallo Abdoul Karim may Cheikh Oumar Fouti ak waa Ceneba